voilà ak euh, ñu ngi ak suñu reporter sama xarit ah bu TFM Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye Papa Sow Siteu noo ma koy tënkalee si benn une minute. Pape Maguette nuyu naa la yaw sama xarit nga muy le si di combat boo xam ne nii ñoom ñaar ku ci nekk daa am combat bi fu mu la war a yóbbu ak lu ma la indil parce que Papa Sow dafa jógee face ak coow tegalante deux défaites ñu ne déedéet waay ñu ñu sànci écrit mu nekk tête de bi mooy première sortie am lu bari lu koy xaar kon Papa Sow combat bi damay wax ne est du nekk pression si boppam. si wàllu xeex noo ma koy tënkalee si chance si ban côté lay waa waaw Papa dàq xeex moo gën a ñor bu xeex si te muy xeexe gëmu ko buntu wut ak bëgg laa juumloo mais Papa fu mu amee coup dal day ñëw. si wàllu bëre. waa Papa Sow si te xeex bi bu fekkee ni si te mën na xeex moom la gën a arrangé parce que moom mooy njool. bu fekkee ne xeexu Siteu jaar na yoon. ci relance bi quoi. waa ci relance bi moom mooy njool xeex bi Siteu la gën a arrangé. Siteu Papa Sow ci wàllu xeex man moom bu dee bu dee bu dañuy waxtaan ci làmb pa ma far ñuy waxtaan ci làmb ah, làmb ji bu ci bëri ak ci xeex yëpp fuñ ci mën a dem rek yàlla mën na ko si may dara ndax xeex bi nga xamante moom lañ xam si Papa bu ñu waxantee dëgg rek nekkul si Siteu bëre bi ne si Papa Sow newul si Siteu léegi nag làmb nag mun ngaa ñëw doo gis dara làmb mun ngaa ñëw dàq mbër mi xeex mu ñëw fàttala doo xeex. mais newul ci Siteu parce que Siteu daf ka waneegul. voilà ba tey mais dafa yàgg. ba ba léegi mu ngi yàgg bu newul si moom ba tey xëy na wane na ko saa li mu jot a xeex yëpp par hasard rek la ciy dal yaa ma gën a xam ba pare nag saa jëlee kuubaay. ku seetlu Papa Sow xam ne boo ko woowee ci xeex da lay wuyu te parce boo gisee njool yi mu xeexal danga nga koy sàcc tëru ko day jaw ci suuf nga bàyyi ko mu yooru nga ànd ak moom ci nga koy nax daan ko mais boo sampee xeex mu samp xeex jaaga lay indil ca bu dóoree day dal ndax fi muy dóor da koy xool mais si te day xale trouvé ba yegg si ñi mu ñi mu dajeel ñëpp gis nga li ci xew ñi mu maasee dañ koo daan mais ñi nga xam ne moo leen sut tuuti dalee na daan te parce que li nga may da koy exploité tout le temps du la xaar Siteu boo xefee lamb ji doo du yàgg ndax du la xaar moom li ko xelam may ak fitam loolu lay indi ci koy gaynde la yor mais Papa Sow day sekk dëju di carte mémoire lamb jóge faas ber ikiréem kon kooku kenn du ko jàngal ni ñuy bëree da koy ñaanal gudd fan ba bés ba. bëre biir mbapat loo ma ciy wax. waa Siteu yaakaar naa ku ne maa ko dàq bëre da wax lu la neex ndax séeréer la te mbappate ko eggal fi mu nekk te mu am fu mu jëm moom tam am lu mu bëgg it ndax am fu mu jógee ñoom ñaar ku ci nekk dafa am foo jógee am foo jëm te lamb ji la siis moo la yóbbu. combat bi mën naa jeexee ci benn songo benn cong. waaw parce que Papa Sow bu si songee si te egg lamb ji mën naa jeex te bu songee te eggul bu ko si te téyit si ta mën naa am mille balaa Papa Sow génne mu mu tënk ko foofu daan ci kan la gën a dangereux wee. ni combat bi risque la ci moom. mooy Papa Sow. da ngeen jàpp ne ci sur tous les plans yéen ko fa mën yow loolu nga a wax papa moo ko mën sur tous les. non wax dëgg yàlla man moom mënu maa wax lool mais xam naa ne papa moom pare na si tous les plans loolu moom wóor na ma pare na si côté yëpp te lamb daanak daan moom si loxo yàlla la nekk. waaye lépp loo xamante ne nii moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy daanee mbër ak moom la ñuy waajee komba mun naa man mun naa wax ne Papa ko ëppale jamono waaw xanaa loolu am naa sañ-sañ wax ko. <laughs> bu dee mbapat Papa gën a njaxlaf ci mbapat bi li ma seetaan Papa moo gën a njaxlaf mais da lay wan ne la Siteu day day njool moo xam ne day ràcc boo comprendre ni ngay duggee ci moom rek bala ngaa xalaat ñu reer ba fàtte combat bi bu ñu arbitre sifflé est-ce que mën na jeex ci benn cong. déedéet. man dañuy wure dañuy wure. maa la gañ fi yaa ma gañ fii am joob joxal njaay raag pim pim ba gaay yi ne fa lay yem ñu bëri. roof rocc. roof rocc am joob joxal njaay. li ko Papa si de rocc. te day fayu si da li ko topp bari danaan ñii dama leen ameel bor Papa Sow ne ko du ma mag moo xam ne escalier xale laa dama lay freiné. Siteu ne ko yaay toog xaar ma maay xale mbooloo mi ma topp bari te dañ maa yaakaar. est-ce que kon mën nañ wax ne ci pression bi mën nañ ko jëlee ci Papa Sow teg ko ci kaw Siteu. waaw man ko topp xale Siteu laa def favori ci làmb ji. mooy favori. moom laa pression bi ci moom la pression bi ci moom la ëppee. ndax làmb ji dañ koo tëggoon bu ko fàtte. waa kat Papa Sow bi ñëwee dañoo sumi seeni t-shirt ndax booyu Siteu nëbb leen ca lu raw loolu. demoon nga bonne presse ba la fa ne bu ñëwee stade bu waa boo toog seen kër xaar. bu dee dañuy am ndam xayrun bu dee dañuy am defet xayrun mais dama ne maa ngi ñaanal ñaari mbër yi ba dimanche Pape Maguette di nga gis lu garaaw fii ci arène nationale